parce que da ngay présenté wax ni nga tudd. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah. Mhm. bismillahi ma seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. waaw man maa ngi tuddu Assane Cissé. Mhm. Mhm, maa ngi dëkk fi Yëmbal. Dakar. waaw ah, bon problème bi ma amoon. mooy euh, tànk. moom laa bëggoon daal ku ma ci dimbali. ñu nekk ci biir réew mi ak ñu nekk bitim réew. ku ci mën jàpp rek maam tànk bi original. ma demee sama hôpital bi nga xam ne moo may si moo suivre. Mhm. médecin wax na ma mhm. un million cinq cent lay jar. Mhm. un million nag xëy na xawoon na jafe. ci boo nekkee silmaxa ba pare def accident ñëw dagg sa tànk. pour nga am un million cinq cent bi du yomb. loolu moo tax ma ci sàkku ndimbal daal. ñu nekk ci biir réew mi. ak ñu nekk bitim réew. ku ma si mën a jàppale daal. ma am appareil bi original dina ma. gënal daal lool moom daal lay sàkku daal. Mhm. ginnaaw loolu it mhm. xëy na dëkkuwaay. Mhm. doon na loo xam ne doon na lu ñu manqué. jamono ji ñuy toll amuñu ko te am nañu njaboot. kuñ ci dimbali it ci kër goo xam ne ñoo ko maamu suñu bopp. dinañu gënal. waaw loolu daal bokk na ci suñu ay problème yooyu xam ne daal bëgg nañ ku ñu ci dimbali. benn bi appareil bi la ñaareel bi mooy dëkkuwaay bi. may ñu jëm ci waa sa wàllum situation. ak fi nga toll nga nekk koo xam ne silmaxa nga mais nga judduwaale ak moom accident bi la dal na la dalee. waaw accident bi de moom dama doon xëy. Mhm. di tàllal sama loxo ci tali bi. Mhm. loo ma am nag ci laa doon indi pour jox sama njaboot mhm. dépense. ak euh, courant beeg ndox mi ak location bi. Euh, léegi yàlla dogal nag euh, mardi le huit mars deux mille seize. suba teel ma xëy ma demee autoroute Euh, ci euh, croisement Kër Massar ale bi jëm euh, dakaar foofu laa taxawee après benn Njaga Njaay mu jóge ci kaw pont bi fekk ma ci trottoir bi naa dafa saaraan daal sama kaw ma daanu uh-huh. ma jaar ci kaw tànk bi jàll uh-huh. finalement ci la bi toj ba mujj mokk uh-huh. yax bi yàqu ma demee principal ñu entraînement mardi ba mardi bi delsi muy une semaine après ñu ne tànk bi dañ koy mujjee dañ koy mujjee amputé parce que yàqu na après ci lañ ko daal di dagg. Mhm. ah loolu ay loraange ci wàllum déplacement nekk Selmaxo aussi nekk benn tànk aussi mu nekk ay jafe-jafe ci yow. waa na xaw na jafe mais sant yàlla. Mhm. ndax oto moom boo ci jogee ba di koy nettali. Mhm. doy na sant yàlla parce que am na ci ñu ci jaar te jóguñu. kon boo ci jógee rek loo ci jëlee di ko nettaliwaat mm, sant yàlla la. métti na nag parce que doon Selmaxa rek xëy na dina xaw a jafe ci pour nga déplacé wu. boo ci yokkee nag euh, gàllankoor mooy tànk. Mhm. bu ñu dagg dina xaw a gën a jafe. Mhm. mais lépp rek dimbali suñu borom. dina mhm. dinañu ci dimbali daal ba ñu ngi sant yàlla daal boobu ba léegi ndax 2016 la woon ba 2020 macha allah ñu ngi sant yàlla. waaw loolu daal xam naa ne moo ci gën a nekk jafe-jafe yi ci jàppale daal ñu jël waaw ba tey nga am ak tànk boo xam ne nag fii lañ ko defaree mu nekk ab tànk artisanal mi tànk bi tey mu jula jafe di damm boo déplacement bi nekk lu yomb te faaw rek nga génn nekk na aussi euh, lu war loo xam ne faaw nga def ko waaw def mënul ñàkk. Mhm. génn bi mënul ñàkk parce que boo yoree sa njaboot faaw nga génn. Mhm. tàllal loxo wut loo leen indil. Mhm. ndax it ay nit boo leen yoree faaw nga eh, daal leen di dundal. ndax ci sa ndax ci yow la ko yàlla jaarale. moo tax génn bi mënul ñàkk. am na appareil mais local bi la woon. bon waaye dafa amoon ay dafa am jafe-jafe moom wax dëgg yàlla. ndax dafay damm da ngay demaat hôpital ñu defaraat ko. Mhm. bu ñëwaatee da ngay doxaat du yàgg ay un mois wala moins de un mois mu yàquwaat. Mhm. jamono ji may wax yow nii am na lu ci damm avant tabaski. Mhm. ba léegi dama koy sooxaal parce que dama taayee dem hôpital wax dëgg yàlla. ndax li ma fa leen jaamante dafa xaw a bari te dafa sori. parce que hôpital bi mi ngi nekk euh, ginnaaw euh, ministère de la santé. waaw ñu koy wax Sénawoo. foofu la nekk dem bi xaw a jafe moo tax ba ba léegi delluwuma. waaw. mais nag ñu ngi jotoon ngaa sax jaar ci ay média ngir wane ñaan ay am nit ñoo xam ne diggee woon nañ ba tey euh, looy sàkku ci askan wi nga gën laa jàpp tey it ñuy wax ñu jëfee ko. waaw lu nga wax noonu la jot naa jaar ci ay média mhm. xëy na bëgg ma sax cité tur yi. Mhm. mais am na média yu ma jaar. Mhm. yu ñu xam lool ci biir réew mi. xam na leen trop. parce que def naa ñoom ñaar ñoo ëpp gën ëpp doole fii ci ci ci Dakar. waaw du du ma ne Sénégal nag mais parce que mais nag ëpp doole moom. waaye ñoom lañ ëpp lu ñuy suivre. waaw am na ci kenn koo xam ne kii ki ki moom rajo boobu. Mhm. dafa jël dafa jëloon engagement. Mhm. woote woon direct ci rajo bi. Mhm. waaw journaliste bi nga xam ne moo doon teg euh, moo doon teg élément bi. daf ko woowoon ne ma lii moom foog ma woo diw. daal di koy téléphoné euh, direct ci antenne bi. mu ay engagement yu bari. finalement dara mujj cee am. parce que demoon na ban ma dinaa wutal appareil bu un million cinq cent bi. dinaa la fayal tamit nga def formation. parce que man góob ma après formation bi soo paree. dinaa la dinaa la financé. Mhm. yooyu yëpp jëlo jëloon na ko may engagement mais dara amu ci. Mhm. dara amu dara defu ci dara. soo sañoon tamit askan wi daal. Mhm. ñuy bàyyi xel ci yu mel noonu. ndax ku ku wax ba dégg la. li war mooy nga jëfe ko. waaw bu fekkee mënoo jëfe rek bul wax bañ lay dégg. parce que loolu loolu tax gën na tax gën na ma yokk coona parce que am na ay sama ay nit yoo xam ne doon toog ñu yónnee ma dara ah Assane dëkk bi na may jàppal ci lii mhm. finalement bi mu jëlee engagement yooyu ci antenne bi ñëpp dañ ne ah, kon Assane léegi am na xaalis parce que mhm. diw moo ko yor mhm. te dara amu ci yàlla xam na ko diw moom ba léegi tegowuñ loxo gisuma ko dégguma dégguma ko ki ma boolee loon dafa mujj euh, filtré sama sama numéro mhm. dugal dugal ko liste noire su ma ko woowee du ma ko jot mhm. finalement noonu laa mujj bàyyee woowatuma ko ok mhm. mais tey ngay dund ci wàllum location aussi amoo kër sa dem ak dëkk taga témb na nga nekk silmaxa amoo ku la wommat yooyu lépp suñu nekkee jafe-jafe waaw kër gi waaw waaw jafe-jafe la jafe-jafe la xam nga Dakar ne fi te amoo kër rek problème la nekk Dakar amoo kër jafe-jafe la parce que location ay benn quinze mille mhm. vingt mille mhm. jafe-jafe la nga nekk silmaxa war a daw di ko indi amaat ak gàllankoor tànk mhm. te foog nga indi ko am ah, mënul ñàkk parce que boo ko defal ci mbedd mi ngay tëdd te doy na waar doy na waar daal wax dëgg yàlla waaw fi daal kuñ ci jàppale daal ñu jël moom kër daal waaw guñ moom suñu bopp daal bëgg nañ ko lool lool lool lool daal moo doon suñu yite appareil bi moom gën nañoo soxal moom tamit lool. original bi appareil boo xam ne tànk la boo xam ne dina mën a déplacé wu. te njëg gi daa xaw a million 500 la la du ay ah, caaxaan. Ah, ah. <laughs> di caaxaan ci ñun sama classe gi génnee ko du yomb. Mhm. parce que yow bu fekkee da daw tali dem for 2000 euh, francs 3000 mhm. ñëw joxe ko dépasse. Mhm. kooku moom boo nee dinaa dégale 1 million moom wax dëgg <laughs> du mën a nekk. man nga ciy dund ay at doo ko dégale de. waaw moo tax daal waaw kon daal ñu ngi sàkku képp koo xam ne nag yaa ngi ci biir réew mi ak bitim réew mm-hmm. foo mënti nekk loo ci mën a jàpp nag mu néew mu bari ñu dajale ko wut tànk bi nga xam ne mooy un million cinq cent ko ki nga xam ne nag mooy Assane Cissé mi uh-huh. ngir mu mën a dem ak dikk mën a yomb ndax liggéeyam mën a wéy mu yor njabootam waaye tamit ku am kër wala lu mënti doon xam ne wax mën nga ko si jàppale aussi nga mm-hmm. jàppale ko waaye tey gaay lu gën a jàmp mooy tànk bi. waaw mooy appareil bi nga xam ne mooy taxaw ngir mu mën a dem liggéeyi. mën a jàppale ñi nga xam ne mooy njaboot gi nga xam ne gi saw mu yor ko. Mhm. Mhm. dëgg la waaw kon noonu daal boo koy daal mi ngi noonu mhm. numéro yi tamit mun nga ko wax bu dee kon ko xam bëgg naa jég bëgg naa jokkoo ak yow. mu jokkoo yow en direct mu mën a jàppale aussi mu jàppale mën nga fàttali sa numéro téléphone. waaw Ibra sama numéro téléphone de 77 la 368 53 49. 77 368 53 49. waaw lépp lu ma ci képp ku ma ciy dimbali daal boo ko dugalee foofu dinaa ci jot. bu dee mhm. euh, Orange Money la dinaa ci jot. Mhm. bu fekkee tamit euh, parawari la maa nga def Assane Cissé. Mhm. waaw dinaa ci jot. waaw transfert yëpp daal boo ko defee naa ci jot incha allah. te yaa ngi fii ci yëmbal. waa maa ngi fii ci yëmbal. di déplacé wu chaque jour dem Dakar. waaw maa ngi déplacé wu chaque di jéem di dem Dakar di ñëw. waaw jafe na mais maa ngi jéem surtout ak nawet bi nii dafa jafe trop parce que appareil yi du bëggul ndox mm-hmm. te xam nga banlieue bi ak moom ni mel kenn wax kenn wax waaw daal di xaar daal ndimbal ci ñëpp ñëpp mm-hmm. bàyyiwuñu kenn daal mm-hmm. ku ci mën a jàpp ñu lay xaar incha allah ñu ngi gërëm ñëpp jërëjëf gërëm yi yow mi déplacé ñëw defal def vidéo bi ñu lay gërëm bu baax baax